sant di sant ñëpp mboolem ñu fi teew du ci ay tur ndax foog naa ne fàttewuñ benn tur gën nañ ko jàng di sant itam doomu cheikh yi nga xam ne nañu dëkk duñ jàpp moom ñu doon wax seen secret jàll mooy juróom ñi ngi des ñëpp ay doom bàyyi seen seen safa gay la kenn xam li mu wax la mu sa ba gis ne war nañoo ñëw jàpp nañu ci li ñuy def ngir ñu ànd defar dëkk bi loolu mbégte mu rëy la ndax day wane ne li nga xam ne ñu ko doon dox suñu borom mi ngi tijji ay bët ndax bu yàgg ba tey ñu ngi fi woon waaye taxutoon nga dikk kon dañoo def ba gis lu leen doy moo tax ñu ñëw kon nag maa ngi leen sant di leen gërëm di fas yéene ànd ak yéen ci ñu jaamu li nga xam ne moo di yitte askan bi ak itam li nga xam moom la ñu dëgmal muy élection présidentielle ñu ànd jàppale ci président Macky Sall mu amaat deuxième mandat incha allah ndax loolu mooy suñu yitte ci la ñu nekk tey nag lii dañ koy tàmbalee ndax lépp lu ñuy def lii moo ko war a lal tey ñu jàngal nit ñi yee leen xamal leen ba ñu xam naka lañ war a nekkee ndax loolu mooy suñu wàll buñ ci jógee nag danañ dem ci nit ñi wax ak ñoom def porte à porte génne bilan bi nga xam ne président Macky Sall am na ko ngir wax ak nit ñi ba ñu mën ko wateel te xar kanam dëkk bi soppeeku na ndax ñoom ñi dikk rek foog naa ne mandarga la ci ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax moom ku tourné ne na gis li nga xam ne def na ko fi nag ñu ngi may interpellé ci coow lu fi am ay ñu bind di wane ne man de dama bàyyi président dama dama def daal loolu danaa ci wax ndax dafa nekkul amul musta am kon fii kuy bind boo demee na bindoo te loolu mooy li ma wax te sëñ dana woon maane ak accès moo ne tux te man maane président Macky Sall ba ci topp mooy site bi ko bind capture nañ li mu def jox naa ko sama avocat damay porter plainte pour diffusion de fausse nouvelle ndax dafa jot ñu bàyyi gor ñi tuumaan te dinaa ko topp nag ba mu sës te su ma ko waxee it ko yóbbu ko mu dinaa ko topp ba mu sës naa porté plainte maa ngi ci dossier baa bi deful tur amul sant kenn xamu ko mais buñ ko joxee ñañ ko war a jox danañ ko saytu ba génne ñan la bu soob yàlla danañ ko xam ndax bii njëkkut élection législative le 31 juillet 2017 defoon na ma ko loola dama ko capturoon ci foogoon naa ne jërul wax mu bàyyi ba mat ati genn wàll mu dellu siwaat kon am na lu ko tax a jóg waaye bu soobee yàlla tey ko

dina xamal ne rek tur bi mel ni turam muy jàmbaar na ngeen xam ne tur bi moom yéen a ko liggéey ba mérité ko kon nag nañu ànd waaj waajal meeting mi ngi def le 3 juillet ndax président fii la tijjee campagne bu demee ñu des fi téyal ko dëkk bi dox fi li ñu far a dox ba yàlla dimbali lañu ba mu àggee ci le 24 février 2017 2019 suñu borom may ñu ndam ndax ndamam kat mooy suñu ndam kon ñu ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp. wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. mu mel ni mu mel ni yéen daal mu mel ni yàlla day wax ak nit ñi en parabole mel ni thème bii nga xam ne moom ngeen def pour conférence bi islam et religion am na ñoo xam ne ñoom lay wax par rapport à la conception de la politique bu ko rek nga indi ñu ci leeral par rapport non xam nga xam nga xam nga xam nga islam dafa englobé lépp ci àdduna

kon li am solo moo di te suñu Ousmane waxal léegi wax bu am solo nit ñi bañu ñu politique yenn jikko yi ci nekk am ñu ko ci dugal di ko def loolu la ñu bañ te itam wax nañu dëgg ndax jikko yi rafetul bu ngeen gisee ñun du ñu saagante du ñu tontu du wax lu ñaaw du ci am soxla parce que dafa am yoon woo xam ne war nañ ko wane parce que buñ ci tabee di ko def ni ko ñëpp di defee jëru ko ndax ño ndax ngay def loolu ñooñu ko dax kon loolu ñun loolu du suñu aw yoon loolu nag tey ji moom lañ doon leeral indi fi ay borom xam-xam yu sell muy sëriñ amu di jàmbaar foog naa tey jii ñu bari découvrir nañ ko ak oustaz Taïb Zos ak ñeneen ñi fi nekkoon kon loolu nekk loo xam ne lu am solo la ñu nekk loolu nañ ko jiital ci campagne bi ba delloo si xel nit ñi wàcc yenn tension yi apaiser ko ñoo xam ne lu man ne am aussi réew mi ñoo ko bokk xañ na xëccoo bi mënut a ñàkk ñun lañ ca war def lépp danañ ko def ñaan yàlla aussi di gagné te rafet nañ njort bu a baax waaye nag lépp itam nañ ko rafetal jaarale ko ci ci yoon euh, jiital ci ay jikko yu sell ay jikko yu rafet ba ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañ mën a amal njëriñ réew mi ni nga xam noonu lañ noonu lañ ko seexloo loolu jeex ba képp koo xam ne mën nga amal njëriñ réew mi ak foo ko mën a amal njëriñ rek nga dikk apporter sa contribution pour le développement du Sénégal kon loolu mooy li nga xam ne mooy la doon thème site bi ku njëkk bi la porte plainte pour diffusion de fausses nouvelles. Et je suis catégorique et j'irai jusqu'au bout, Inch'Allah. Cette question avant avant français, dañu demee le chef de religieux yi ñu que davantage ci politique te sénégalais dañu am une image négative de la manière dont la politique est faite au Sénégal est-ce que vous su ngeen ci liggéey mën ngeen a changer image wala da ngeen di dem ba mujj gi ngeen ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu nampatal ci lu baax yar la ci jàngal la ci dara mun la xam ñi ngay gis fii ñuy ay nit diine fu ne nag fi monde bi waaye fu ñu dem seen maxtu yeeg seen bolo gi la ñu sol kon dara mun leen soppi te yàlla dafa dogal ñoom ñooy ñi njiit ñooy leader yi nga xamante ne bii ñoom ñooy war a yus ñoom ñooy war a yare ñoom ñoo war a wane aw yoon kon kuy xaar ñu soppeeku. foog naa ne moom fa nga xaar da nga fa yàgg te du soppi ci perception boobu aussi ñu am lu ñu tabax la ay nit ñoo ko tabax parce que dafa am loo xam dañoo bëgg ñu bàyyee leen ko ñu ne lii seen yoon nekku ci loolu nag ku ñàkk fayda wala nga doye di ba teg la foofu mais toogal ci sa ko sa problème la mais ñun liñ ca war a dox nga ko dox ndax loolu lañ fekkoon suñu wajur yi suñu référence daal di ko doxee di ko def moo tax ku yàlla bind mënul ci génne ndax suñu cër la xam nañ ko def xam nañ kenn dox fenn ba fekk ñu fenn ñu mooy yàlla bu ko def génn ko nga wane ko ci internet li ngi def nii fu wér lañu ko teg te ñii ñëw nag fekk suñu tey daf ñu gën a conforté ci position boobu ndax ndaxte bu doon ton du jaadu duñ ci dikk te ñoom kat yàlla bi nga nanguñ woon de waaye dañoo dem ba gis ne lii lu baax la lu wér la te itam am na ñenn ci mag moo tax ñu nekk si Ousmane waxal la ñu ne ñëpp mënuñ cee nekk waaye faw am ci nekk parce que réew mi du ñu ko bàyyee ay ni ñu koy caxat caxatee di ko saax saaxee di ko yàqte ñu nekk fi am luñ caxa am luñ caxal seetaan kooku duñ ko def c'est une question de responsabilité et c'est question de conscience kon loolu man foofu laa nekk te ci loolu laay dox te mooy li ma expliqué di la ko leeral jërëjëf